الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخير خديمه أجمعين mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu di siyaare bu baax a baax di lokkeel képp ku ñuy teewlu ak fu ñu mën di teewloo rek ci àdduna bi yépp waaye di jiital ci nuyoo yi ak ziyaar yi ak ndokkeel yi mawlaana suñu sëriñ suñu kilifa cheikh Mouhamadou Mountakha alxalifatul aam lil muridin di ñaanal suñu borom di ko ñaanal suñu borom dëgëral ko yokk ko kàttan yokk aw fanam bam sottal naa ni naan ci toolu sëriñ bu mag bi yëpp waaye di ko ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam di ko jàppale ci liggéey bi yëpp yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi te ñun taalibe bi yëpp ñu ànd ci ak ñoom di nuyu bu baax a baax a baax ñu teewe jotaay bii di benn ci jotaay yi nga xam ne daayiratu Muxaddamatul Xidma da ko baaxoo ànd ak mbokki taalibe yi ci weeru safar bu jot di ko doore ci juróom-ñeenti fan safar ba ca fukkeelu fan ba ak ñeent neuf safar ba quatorze muy waxtaan yoo xam ne yàgg nañ koo amal fii ci jumaa yi am ci juróom yoo xam ne dañu koy defee fii ci biir jumaa ji ci taxawaayu daayira bi waaye am ca benn boo xam ne yëpp dañ koy ànd ak bi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci organisation màggal gi waxtaan yi nag ni ñuy faral di da doxee mooy day am ay thèmes yu wuute waaye nag yu ci bare bari wala boog yu ci ëpp day jëm ci lu soxal sëriñ bi ak murit gi ak màggal gi tey jii nag ñu war koo doore ci benn waxtaan woo xam ne dafa bokkoon ci waxtaan yañ programme woon ca biir koor ga ñu programme woon ko ca euh, fanweereelu fan ba far yàlla dogal koor gi yemoon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent waxtaan woowa dafa jëmoon ci lu aju ci jàkka ak taxawaay yiñ ci war a amee waaye nag mel na ne suñu borom lépp lum mu rek day lu gën waaye lépp loo xam ne da ko dogaluwul rek jamonoom dafa ñëwul day mel ne waxtaan wi fii mu ñëwee dafa tase ak yu baree bari yoo xam ne mën na koo layal waaye mën na ko dëgëral waaye mën na ko gën a jox beneen maanaan yaakaar naa yooyu buñ ca tuddee rek ne dafa tase sëriñ bi muy Cheikh Amadou Mountakha jox ñaari kuréel yii di daayira Muxaddamatul Xidma ak Rawdu Rayaahiin jox leen ndigal ci ñu taxawal ab mbooloo moo xam ne ñooy saytu lépp lu aju ci yi ak jumaa yi nga xam ne ñoo kon mbooloo moom bu ñu taxawee ba am ci ndigalu sëriñ bi far yàlla dogal ñu programme moom waxtaan woo xam ne dafa jëm ci loolu foog naa bu ñu ko wàccee wala boo yàlla dogal mu néew ba ci biir safar gi ñu doore ko waxtaan yi day nekk loo xam ne da ko yokk maanaa ci lu kat di waxtaankat boo xam ne xam nañ ko ci médias yu bëree bëri waaye xam nañ ko ci ay taxawaay yu bëree bëri yu ñu ci biir dëkk yaakaar naa bu ñu tuddee taxawaay yi am rek ci biir daayira Rawdu Rayaahiin dana mat sëkk dana doy sëkk muy sëriñ Maam Balla Mbàkke Muxtaar kon ñu ngi ko dalal bu baax a baax di ko tatagal di ko jox kàddu gi bu ko defee bu ñëwee ci waxtaan wi xëy na du yàgg 40 minutes jëm 50 minutes incha allah. bu ñu ñëwaatee danañ gën a indi ak leeral ci bu ñu amee lu ñuy commentaire ak lu ñuy leeral ci majlis bi ñu doon junj léegi te muy mbooloo moom nga xam ne sëriñ bi daf leen a jox ndigal pour ñu war a taxawu jumaa yi ak jàkk yi nga xam ne ñoo bootu ci yoonu murit te nekk fii ci biir dëkk bi kon sëriñ bi bismillah euh, ñu ngi lay dalal bu baax a baax di la massawu di la ñaanal suñu borom defal la tawfiq bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah xaq xamdihi wasalaatu wasalaamu ala xayri xalqihi muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi baadihi wa radiyallahu an abdihi xadimi rasulihi summa salaamun minallahi aleykum wa ala jamihi ibadihi ñu ngi leen di sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf na Cheikhul Khadim ñaanal ko gërëm ñoo ngi leen di nuyu nuyu sell ci nuyu yi di am mbégte lool ci ànd ak yéen jataay bu tedd bi ci barab bu tedd bii waaye ñu fas yéene ko xam lu tedd lii euh, nuyoo yi ak ziar yëpp nag ñu ngi ko Cheikh Abdou Khadre ñu séqal débat yi mu jàllale ko ci mboolem mbokk yi nga xam moo tax ñoo ko taxawal ñu waa ma xadoon bi kenn waaye di ko si daxante yoo xam ne guddal ci nuyoo yi kon ni mu ko waxee rek jataay bi ci kaw bi lañ ko waajoon waaye faral sama doom bi bëggal mu am ba ci wéyum seen xarit bii ñu yeesalaat ko li eh, suñu xaj waxee nag tomb bu am solo la ci jamono yëpp waaye raw ci comme ni mu ko waxee muy jàkka lan mooy ab taxawaayam jàkka lan mooy ab taxawaayam xam naa waxtaan bi ñu fas yéene tënkee mooy. dañoo baaxoo baati arab yi nga xam ne moom la ñuy tënk wax ni baat yooyu lañ koy tënk rek bu ñu ko ñëwee tënk danañu am bunt ci liñ bëgg a wax te mooy al masjid wa wadaifuhu wala wadifatul masjid wadifatul masjid bu ñu xam ne lan mooy wadifa baatul wadifa ak lan mooy masjid rek daanaka danañ am bunt ci waxtaan bi euh, su ko defee boo ko dikkee nag ci yenn ci wadaif yi xam ne masjid dana ko am waaye xëy na day tudd benn ci masjid bi comme dañoo sëj nga xam ne ñaare dañu wuute lu bëri xëy na ci zorof yi bërëb yi ñuy nekk ak jamono yi nekk rek ci la ñuy wuute waaye ñoom ñëpp daanaka ñu bokk caractère bi euh, euh, seen ay melokaan euh, buñ ne al masjid nag ci loo xam muy firi mooy dafa firi néegu jullikaay dana firi itam bërëb bi ñuy sujjoote barab barab ñuy sujjoote dana firi waaye dana firi itam cër bi sujjoot cër bi la kon bu ñu nee masjid mën naa nekk barab bu ñuy euh, jullee waaye mën naa nekk barab bu ñuy sujjoote waaye mën naa nekk itam cër buy sujjoot ci lu bu dee ci maanaam tënki baal istilaax bëri na ay taalifaat bokk ca dañuy wax ni al masjid muy néeg yi ñu tabax ngir di ca julli ngir yàlla néeg yi ñu tabax ngir di ca julli ngir yàlla nga xam dañ koo jagleel borom subhanahu wa taala taala jagleel ko di ko fa jaar kon bi ñu almasjid mooy barab boo xam ni dañ koo tabax ngir dafa julli ngir dafa jaa di julli gi euh, euh, kese euh, duñ keneen wa anna al masajida lillahi ma'a allahi ahada alxam ne ne jàkka yi moo leen moom bu keneen bu yàlla kon bépp boo xam ni mën nañ faa jaam yàlla rek di ko fa si mën nañ ko tuddee masjid bépp barab boo xam ni mën nañ faa jaam yàlla mën nañ koy si jóot ngir yàlla mën nañ ko tuddee masjid te loolu yéen saw sax ko moo ni joxe na deel ak bu masjidan wa taxawuraan joxe na deel ak bu masjidan wa taxawuraan yi dem saw sax na suuf si lépp defal nañ ma ko muy eh, sujjóotukaay am na ci yeneen diine wala ci yeneen xeet yi ñoo xam ni bu fu leen neex ñu julli dañu am bara ab ay bërëb jullikaay foofu muy sañ jullee jullit nag foo ko fekk foo ko fekk foo ko fekk rek te sañ sañ naa julli foofu même bu amul ndox sañ naa laab ca suuf sa sa julli ca suuf sa loolu sax mu joxe la del masjidan wa tahura bu dee ci liñ ko baaxoo nag maanaam ni ñu xam ci ci ci urf day mel ni bu ñu nee masjid fii moom liñ ci liñ ci gën a li xel dem mooy barab yi jagleel julli juróom ñaar bu ñu nee masjid rek li xel bi ba ne dañuy tabax masjid dañuy tabax jàkk xel yi dañuy dem barab yi ñuy daje di fa julli julli yi juróom. su ko defee nag mu am ay ay ay ay ay ay xeet wala ay tur yu nuroo te bokkuñ te léeg-léeg itam maanaam ñu xaw a lu mel ni masjid daañu wax masjid daañu wax musalla daañu wax jaamia dañ wax masjid muy jàkka daañu wax musalla muy jullikaay daañu wax jaamia muy jumaa comme ni ñu ko waxee léegi bépp pàkk boo xam ne wér na ñu mën faa julli rek des koy lim ni jàkka la wala su jootukaay la comme ni ko xadis moom jàngale waaye jàkka ji nga xam ne nag ay ahkam fiqhiya daf koy gaar dafa am ay jagle su ñu ne masjid suuf sépp masjid la fu ñu mën a julli rek waaye nag bu fekkee dafay am masjid boo xam ne dafay am ay ahkam fiqha yoo xam daf koy gaar foofu foofu day am ay ay sociétés yoo xam mat euh, bokk na sax jàkka ji nga xam ni ay attey fiq day tegu ci kawam barab la boo xam ne nañ ko war a waqf waqf ngir julli barab la boo xam ne nañ ko war a waqf ngir julli man kaana moo ko fa li waqf ab bunt la ci fiq boo xam ne xamee sax ko mooy nit ki jël alalam joxe ko ngir yàlla mooy moom jëm ja waaye njëriñ la moom ñam ko jox kuréel da nga ko jox ci jullit yi moo xam ay néew doole wala moo xam jàngalekat ñu ngi ko rek ñoo ñoo ko jagloo ñoo ko jagloo kon jàkka balaa am at tey lislaam at tey fiq di tegu ci kawam faaw day nekk bala boo xam ne ardul mawqufa maanaam suuf suñu waqf la maanaam du doon maanaam maanaam bien commun lay doon du doon bien maanaam euh, privé bépp soo xam ne maanaam wax nañ ko wala ñu xogus ko comme ni joxe nga xam nañ koo jàngee ñu julli kese loola man lañ tuddee masjid muy jàkka joo xam ne nag ak tey jàkka day tegri kom kon jàkka bu ko waxee masjid mooy barab boo xam ne barab jullukaay la waaye am nag jagle te mooy barab la boo xam ni ak nit du ko moom wala boroom daf koo joxe ngir julli jëpp ko nga xam ñëpp sa yam sa cël bu dee musalla nag jullikaay mooy bépp bërëb boo xam ne moom des di fa ñaan rek duñ ca sart nag mu nekk moo ko boroom mën na ko moom nit ki bu ko neexee këram saala bu nekk maanaam sa saal musalla sa bu ko neexee nga jël sa sa ëtt wala garab sama garab buntu kër bu nekk ma def ko musalla waaye boo nag doo yore atte masjid mën naa nekk sax bon moo xuuf mën na ko bañ a nekk tam nag wala neex nga jël benn barab fekk jagleel ko jullit yëpp mu nekk ab jullikaay rek bu la neexee tam nga moom ko déglu kenn ku la neexee fay julli dina dina nekk jullikaay kon dañuy déggee ni al ak musalla muy jàkka ak jullikaay kese daañu wute ci yenn atte yi ba ñuy njëkk mooy al li ñu ko tuddee léegi mooy barab wax dañ koo waq ngir julli boobaa nag kenn sañu koo jaay kenn sañu koo maye kenn sañu koo ah, caa def leneen ate wax fa nag mi mi mi ngi dépendé si maanaam ki nga xam ni moo ko moo ko joxee moom di dund ñaari asuwaan la def wala ñam ko jox moom mi ko joxoon su dundatul ate ba ne soppi waaye na ko jox tam du ka mu ko jox bu dundee du affaire bi soppi waaye diiru waqf baa ngi wéy moom barab ba ñu waqf pour maanaam def ko jàkk di fa julli barab la boo xam ne kenn sañu koo jaay kenn sañu koo maye kenn sañu koo tere kenn sañu ko def leen ñaareel ba jàkka li mu wuuteeg jullikaay jàkka jigéen ju gis mbaaxu jigéen rey du fa dugg maanaam du fa toog dañ koy doon mu mu noonu nit ku yore janaba dañ ko koy tere te bu doon barab boo xam ne barab bu jullikaay la maanaam jullikaay rek maanaam ab saal wala ñuy préparé pour dafa jullee loolu arte ko gaar waaye bu dee jàkka moom dañ koy tere al xaaidu muy jigéen bi gis règle wala al muy nit ku am jalam loo xam ne gënul jigéen bokk na ñetteel yi ñu wute gaa ku fa dugg bala nga faa toog da ko war a nuyu li nga tax a ca masjid te bu dee jullikaayu kese nii musalla moom jëm julli maanaam jëm nuyu mën ngaa ñëw rek toog waaye jàkka moom boo fa duggee bala nga faa toog da war a nuyu jàkka ja ci ñaari rakkaan bokk na ci euh, yooyu mooy jàkka kenn sëñu ta tabax ci kaw. allah moom mu doon ay jullikaay bu dee jàkka ji dafa xam te mënuñ ko yàqali mën nañoo tabax ci kaw étage waaye di ci julli kanta tabax jàkka ji nag ca kaw dëkk fa def fay logement di ko luwe wala ay boutique wala commerce yooyu loolu loolu kenn sañ ko maanaam bu xasee nekk jàkka ca kaw di ca dëkk doonte wuute am na la ci li sës ci jàkka ji maanaam ndax mën naa nekk ay magasin comme ni ma amee fii day gis yi ñoo xam ni jàkka yi euh, dañuy wut ay dañ ciy dagg dara ci li ko wër enclave alantu bi def ko ay cantine di ko luwe di ko euh, gérer jàkka yi xëy na yooyu am nañu ni mën naa nekk am ñu ko bëgg a dugal ca la rek waaye daan solo bërëb bu ñu ko xasee ni bërëb bi jàkk la moom mënut a nekk ay logement mënut a nekk ay commerce déedéet dafa war nekk bërëb boo xam ne jàkka julli kese la jaamu yàlla kese la jëm am lenn Euh, kon yooyu yenn la ci nga xam ni jàkka wuute na ko musalla muy barabu ñuy jullee beneen tur bi ñu tuddoon léegi muy aljaamiu nag bépp jàkka boo xam ne dañ koy taxawal jumaa pour lañ naan jaamee jaamee mooy fu ñu taxawal jumaa ci jaamee tam fa la ñuy defee intikaaf intikaaf mënees su ko defee fu dul jaamee ndax ki koy def daa war di julli daa war di julli jumaa te sañu te génn tam intikaaf boo génnee day yàqu kon bokk na ci ay usoosey jaamiya mooy foofu rek lañ mën a julli jumaa jàkk kenn mënu faa julli jumaa musalla kenn mënu faa julli jumaa donte ay ay ay ay ay ay ay ñu ngi ci boo xam ne ñu ngi ci ubbee léegi nag ndax dafa am na waaye loolu ci juróom yi lay doon xëy na fu ne nii boo demee ay Europe wala ci yenn barab yi nga xam ni ay jullit dañ fay dajale ci daje daje ci yenn ndaje yi hôtel ya ñuy dal am na ñu ubbee ni man nañu wut benn salle fi julli jumaa di xutba am na ci euh, fuqaaw yi ñu ko saxal loolu mën naa nekk doon de foofu du barab bu ñu tabaxoon ngir jumaa waaye zuruuf yi moo euh, maye ñu mën fa euh, xutba julli koo war a tabax ngir di fa julli jumaa waaye itam foofu rek lañ mën a ihkaam kon yéen loolu leen la ci ñu doon andi rek ci lan mooy jàkka masjid bi la ko wuutale waaye lu ko wuutale ak euh, ci wasaif yi nag wasaiful masjid yi baatu wasifa ci luxal arabiya mooy lépp lu ñu nattale ci ay jëf wala ak jëf ju mën lu mën doon rek loo xam dañ ko tënk ci waxtu ni waxtu bi lii lañ ciy def loola wasifa wasifa mooy mën naa nekk jaam yàlla mën naa nekk ëpp mën naa nekk leneen tam lépp loo xam ne dañ koo dog ci waxtu ni lii yëpp sàngam lii lañ ciy def ak ko jox loolu wasifa la dana ñëw ci maanaam alxidma dina jox alxidma alxidma wasifa la xam ne service euh, baat ci al islam dafay nekk daa nekk mansib muy poste wala ko wax fonction wala métier wasifa dafa nekk daa nekk tam alxidma moyen na muy service bu ñu ràññale kon wazifa mën naa nekk métier mën naa nekk ab liggéey mën naa nekk maanaam liggéey la muy ab liggéey boo xam ne dañ ko wutal waxtu waxtu wu jotee ñu ko cay def euh, kon bu ñu nee wazifatul masjid mooy jàkka lan mooy ab liggéeyam lan mooy njariñam lan mooy taxawaayam ci l'islam bi waaye ci société bi itam ngir xam euh, lan mooy taxawaayu jàkka wala lan mooy ay ay wasaifam nag mën nañoo dellu ca alquranul karim waaye mën na de mënoon dañ sunna annabiyu sharifa waaye mën nañoo dellu ci taarix tam bu dee alquran borom subhanahu wa taala lay wax ni bismillah rahmaan rahim fii buyutin أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزم له أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب aaya bi ba mu sant alwani ay néeg ak yoo xam ne am na néeg yoo xam ne yàlla daa digle ñu yëkkati ko am na ñu ni man taxaw ñu tabax néeg lu bëri ci bu fassiroon yi dañ ko firee ni jàkka la am na ñu nag ay kër la kër yëpp parce que kër yëpp lañ mën jullee waaye ñooñu firee nañ ah, dañ ko jagleel jàkka mu ni yàlla digle ñu yëkkati ko tabax ko di ko fa tudd di ko fa sàbbal subaa ngoon ña def nañ ay góor lañ ñoo xam ni Euh, commerce ak jënd ak jaay di leen occupé ba du ñu tudd yàlla ak taxawal julli di génn asaka ñooñee day dañoo ragal bis boobee nga xam ni euh, euh, xol ya ak gis ya day dëpp ngir yàlla fay leen ca nag gën jaa rafet loole ñu leen ca ci ngër yëlam ndax yàlla mooy wetam ko aaya boobu day tegtale ni kon jàkka li ko tax a jóg mooy jaamu yàlla dafa tax mooy ñu ñu fa yàlla di ko jaamu euh, am na beneen aaya wa man adlamu man manaa masaajida llaahi an yuzkara fiihaa ismuhu wa sa'aa fii xaraamihaa ulaa'ika maa kaanuu an yadxuluuhaa illaa xaa'ifiin fi dunyaa khizyun wa lahum fil aaxirati azaabun aziim aaya bi alquran dafa wax ne ana kan moo gën mën a tooñ ñiy tere jàkka yàlla yi di tere ñu jaamu fa yàlla di ko fa tudd turam ñuy dox wala jëf ci lu ko ràppal ñooñu de waruñu dugg ci jàkk yi du seen fit daa leen tiit ragal di ragal leen fay fekk ndax ñooñee ah, danañu toox ci àdduna ba àllaaxira dañu am mbugal bëri na ay alxuraan yuy tegtale di jàkk li ko tax a jóg kon mooy jaamu yàlla kese jaamu yàlla kese Euh, bu dee ci sunu sallallahu alayhi wasallam moom it bari ay xadis yu tegtal loolu am xadis a xadis kursi euh, borom subhaanahu wa taala di wax ni yéen tamit nettali ala inna buyuti fi l ardi al masajid yàlla xadis kursi ni sama néegi wala sama kër yi suuf mooy jàkka yi ahli samaai kama tudiu nujumu li ahli l jàkka yi ni biddiw yi nekk ca kaw di niit waa di niital waa suuf si muy leer ñuy gis jàkka yi waa kaw ña ne sa kaw ña wala malawul aala ñoo noonu ñu séen jàkka yi mu mel ni luy lu yor leer bu ciy fenkee ñoom ñu di ko séen di ko xamee mu ne alaa tuuba man kaanatil masajidu buyutu mu ne taxe la ñeel la koo xam ni jàkka yooyu ñooy ay këram wala ay néegam alaa bashiril mashaa'ina fi dhulumaati ila al masajidi bi nuuri saatiq ni nag yàlla bëggal euh, na ñi nga xam ne ñooy dox saa su leen dem ci jàkka yi surtout bu lëndëmee ñu dox ci jàkka yi ca leer bi fenk koo xam ni euh, ña kaw dañ leen di seen kon buñ sukkandikoo ci aaya yi ñu jàng ak xadis bi dañuy gis ni jàkka moom leen dong dong dong moo ko tox a mooy euh, jaamu yàlla surtout julli waaye loolu di déggee ci aaya bi yëpp nag ci jàkka ngeen ni jàmm yàlla boo ko taxee ñu tudd ko doom téewul ne nag dagal na ñu fay mën yeneen activité am na yeneen yoo xam ne dagal na ñu ko fi yeneen jëf yu dul julli ak lu tudd yàlla jàkka li tax ñu ko tabax mooy julli ak tudd yàlla waaye téerewul ni am na yeneen yuñ fa sañ a def yoo xam ne du loolu boo demee tafsir Qurtubi fi muy firee anna al masajida lillah euh, mi ngi wax ne ma anna al masajida la yuskaru fiha illa Allah fa innahu tajuzu al qismatu fiha lil amwal wa yajuzu wad'u sadaqati fiha ala rasmi al-ishtiraki bayna al masakin wa kullu man jaa akal euh, al-Qurtubi wax ne jàkka day doon wax nañ kenn fa tudd ku dul yàlla teewul dagal na nag ñu fay dajale ay alal di ko séddale lu mel dafa teg asaka yi ak sarax yi coobaraw yi ci ngir miskin yi ak ñu néew doole yi man koo bokk daggan na ñu togg ay ñam di ko teg ca jàkka ja ngir ñu néew doole ñi ñëw di ko fekk di ko lekk loolu lu rafet la lii nga xam sëriñ bi mi ngi koy def lay lekk ci bisu jàng alquran bi ñu joxe ndigal na nit ñi toog toog yóbbu ko te jàkkaay loom solo ndax jàkka dafa dafa maanaam jàkka dafay suuxat li ñu li ñu wax liberté ak démocratie maanaam waa ji dëkk bi am wërsëgu yaatu su rayee ay ndagam di ko séddale ci këram am na waa yoo xam ne moom maanaam da ko sëfale wala jubóowul du fa ñëw am na ñoo xam ne fi ne loo man di yor ñooñu teraanga ci sa teraanga bi waaw am na ñoo xam ne teraanga yi bu dee ci kër la ne kër diw la ne duñ ca dem waaye bu dee jàkk ja xam ne kenn moomu ko man laa jàkk fi ne amul sàppe si mooy sàppe sang bi mooy sàppe jaam amul jë mooy sàppe ku am wala sàppe ku amul amul biis mooy sàppe ki njëkk ci yëf yi wala ki ci mujj a ñëw man laa jàkk démocratie démocratie totale la moom amul ku moom barab xëy na dañ réserver réserver ñi nga xam ni xëy na mën nañoo wutu imam ñu gën a jege imam pour bu kii ñu mën waaye bu ñu loolu ñëpp ci am moo tax bu ñu def jàkka yi yi di ko yi nga xam ni ñëppay mën a dem maanaam néew ci kër kenn wala kër mbaay kenn ñëppay mën a dem même ku juwoo rek na ko fay joxee tam su la neexee kenn jëfandikoo kon jàkka dagan na ñu fay mën a nekk fii te bokk na ci yooyu. daggan na même kaso maanaam maanaam ñu di fa tëj nit koo xam dafa amee bor bu njëkk daal nañu tëj jàkka yi prisonniers yi daal nañu tëj ci jàkka yi même daggan na sax comme fu nekk tëri mu dem tëj jàkka dafa nelaw maanaam nit maanaam ku feebar amul fu mu fajoo maanaam dem dëkk ci jàkka la dëkkandoo yi wër jàkka ji mën nañu ubbil baax jàkka ñu ko jëfandikoo lañ soxla comme fii lu mel ni inondation yi am yooyu nit ñi mën nañu ubbil jàkka yi ñoom dëkk ca man mën nañ fay sandaay yooyu man jàng xasida wala leneen sax loo xam ne nañ ko jàng jàkka yi kon jàkka li ko tax a jóg mooy julli ak tudd yàlla donc waaye am na yeneen mbir yoo xam ne mën nañ ko faa def yoo xam ne julli soxla nañ ko muy seen njëriñ bu fekkee ni ay neen wala am ko jaxasoowu ca moo tax buñ delloo ci taarix dañuy gis ni jàkka daal nga gis jàkka moo nekkoon moo doon màndargaal bennoo xeet bi bennoo xeet bi jàkka moo ko doon màndargaal moo ko doon dëgëral jàkka mooy def bis bu ne mu dajale waa koñ waa quartier bi juróomi yoon ci bis ku ñëwul ñu xam diw daa feebar wala daa problème sàngam ku amul xew luy yëngatu jàkka ji maanaam jàkka loolu loolu la maanaam. Euh, euh, danaa benn nit ñi su aljuma ñu ne ñu yor ay jàkka ci koñ bi ci quartier bi nañ tëj seen i jàkka ñu dem daje jumaa ja su koree wala tabaski ñu nañ génn jàkka yi génn tubaab yi dem ca ginnaaw dëkk ba waa dëkk ba yëpp loolu ram wax da la maanaam li jubla mooy benn la julli kon jàkka yàgg naa nekk luy benn la xeet luy benn la julli am na ndaje boo xam ne bis bi dañ juróom yoon ci jàkk am na ndaje moo xam ne ndaje par benn yoon semaine bi la ci jumaa am ndaje wax nañ ko dañuy nag ci musalla muy jullikaay julli nga xam ni kon jamono ju nekk jullit yi bu ñu musaa nekk ci tedd nga nekk ci jàmm ah, jàkk dañ ko def borom jàmmukaay yàlla def ko boo xam fa la ñuy àttee euh, def ko boo xam fa la ñuy daje euh, di fa jullee ak ak waxtaani si ñu la waxtaane waaye ñu musaa nekk ci jafe-jafe itam mooy barab boo xam ne fa la ñuy daje def réunion fa la ñuy organiser riposte xeex yi ñu war a xeex yi rasul yëpp la ñu doon kon jullit yi jàkka bu dafa nekkoon lu lu lu symbolique ci ñoom bu nekkee ci jàmm fa la ñuy jaamoo yàlla fa la ñuy di waxtaan fa la ñuy defe yu bari ah, waaye bu ñu nekkee ci ab safaan tam faruñu daa waaj pour war a xeexi wala pour war a défendre seen bopp loolu a taxoon maanaam nit ñi bëggoon jàkk ndax yu bëree bëri yu am solo seenu dund ci jamono jooju ci jàkk lañ ko doon jële li gën a important ci fas ci dund gi ci jàkk lañ ko doon nose moo xam ci seen relation seen biir seen yéen biir waaye loo xam bu ñu nee jafe-jafe itam yu bëree bëri lañ ko doon euh, nose lañ ko doon waxtaane fa lañ yi fa lañu doon euh, gisee loo tax ko lool amoon fuñ ko rek waaye jamono jamono daa mel ni da cee fo mel ni xaw a soppi rôle ba jàkk xëy ci yenn barab yi li mu wax sax na lu loolaa ba fi am na seen barab am na baroo xam ne jàkka yi boo demee benn kuréel ñoo ko moom boo xam ne ñoo koy donnante maanaam jàkka yi bàyyi diw wala jàkka yi maam diw wala jàkka yi ñoom diw kay nodd naa bañ a rafetal nodd waaye mooy nodd kay jiite mën naa bañ a euh, mat ilimam waaye mooy jiite maanaam noonu la tëddal fii jàkka yi bàyyi diw wala jàkka maam diw maanaam diw ñoom ñoo ko yor rek am na boobaa nag ñaa xam ne bokkuñ te ñooña moom bokkuñ te kuréel googu bu ñu am cofeel te jàkka ja daanaka si tamit lañ cee demee am na ci ñoo seen jàkk barab yi euh, fànku lu ñu lañ koy wute man a am mbooloo fay nekk moo xam ni maanaam ñoo yore jàkka ji ñoo koy gérer yor seen kees daanaka ñaari fan ñett ñu ne dañuy yeesal nangam dem wër ci kilifa yi war a borom alal yi laaj maanaam euh, di wut lu jóg seen kër bu bokkul ci kuréel boobu daanaka yow jàkka ji doo xam am na ci yoo xam ne daanaka ñenn ci ñu néew nga xam ni maanaam société bi li nga gisee nga xam ni maanaam mënuñu mënuñu bopp dara ñoo fay leen maanaam comme am nañu jot rek yooyu yëpp ci yi. xeetu jàkk yi la bokk euh, bokk na yi nga xam nag kon jàkk benn lu mu lu mu defal bàkk benn jàkk yàgg naa bari lu mu taxaw ci société bi yàgg bari na euh, buñ bëggoon nag wax yi ci gën a solo nag ñeenti wasifa ngi yoo xam ne mën nañ koo jàpp ni moom ay wasaif yu am solo la yoo xam ne naka jekk bu jëkk jàkka da ko daa taxawe te ba léegi itam jàkka mi ngi wii di ko taxawe doonte am na ci yenn yi ay sëpp koy cam bu jëkk ba mooy al wazifatu taabudiya jàkka niñ ko biñ ko junj ci waxtaane aayi jàkka li ko taxa a jóg bokk na ca di eh, barab jàmm yàlla fa la jullee julli juróom fa la jullee ay juma fa la jullee xayit yi fa comme tarawih yi ak yeneen i julli mbooloo waaye fa la ñu intikaaf bi nekkee eh, jaamia comme xeetu jaamia li ñu xeet julli yëpp boo ko ci jàkka lañ koy defee kon jàkka wasifaam bi ñëkk mooy wasifa taabudiya eh, al wasifatu eh, ñaareel mooy al wasifa tawjihiya wala irsaadiya jàkka barabu bu ñuy jubbantee la barab bu ñuy orienté la barab bu ñuy yaree la barab bu ñuy laabiire la barab bu ñuy jëlee ay euh, nasaaix la ak irshadaat moo xam ci xutba yi nga xutba la ci ajuma yi wala sax ci bayaanaat yéen yoo xam ne dañ ko fay euh, tanzim kon ba tey jàkka barab la boo xam ni nit ñi dañ fay dem ngir orienté wu ngir jubbanti ko ngir am na imaam boo xam ne ajuma dana waar nit ñi xutba ci xutbaam tegtal leen ni seen njëriñ nekk moytuñ seen loolu nekk waaye am na ay bayaan yi ñu fay def yoo xam ne ci loolu la jëm. waaye mën nañ fay organiser yeneen waxtaan euh, euh, yoo xam ni ci yooyu lay jëm kon al wadifa thaniya mooy al tawjihiya wal irshadiya euh, bokk na ca ñetteel ba al wadifa al ilmiya muy baala bu jàng ak jàngale jàkka bokk na ci wasifa yi gën a yi gën a cosaanu mooy barabu jàngukaay la ay taal ay doomu xam la ñuy daje bi jàng ay durus moo xam alxuraan la moo xam ci xam-xam yi diine yi la ak yeneen xam-xam yoo xam dafa am nga man nañ bu yàgg lool sax xam-xam yi diine foofu rek lañ koy jànge am nay jamono diin bu yàgg yàgg ci taarixul islam yi xam-xamu diine ci jàkka dong lañ koy jëlee daal ci jàkka dong fa lañ koy jàng fa lañ jàng alxuraan fa lañ jàng yeneen xam-xam fiqh yeneen xam-xam yi loolu am na diir bu yàgg yàgg yàgg euh, bokk na si ñeenteel wasifa mooy al wasifa al ijtimaaiya mooy euh, lu jëm ci wàllu euh, social te mooy dimbalante ñun ñu léegi bokk na ci euh, yëpp solo ci ay rôle yoo xam ne jàkk daana ko suyee te li ko suyee ba léegi mooy méngoo yenn activités yi sociales yi nga xam ne ci nit ñi lu mel ne fas sëy bokk na ci ba léegi mu am si lu mel ni dajale asaka yi lu mel ni dajale ay sarax ay di ko séddale lu mel ni jàppale dimbalante ci diggante nit ñi ci ñuy organiser yenn feeti diine yi am na ay jàkka yoo xam ne mel ni euh, tamxarit bi dañ koy organiser ci jàkka lu mel ni gàmm yi gis ngeen gàmm gi nañ koy organiser fii jàkka ji ci jumaay Tuubaa yi nga dañuy organiser lay gàmm ko ba nga xam ne fi lañ ko defee ak xeet yooyu ay mbir la yoo xam ni donc am na jaam yàlla ci côté bi waaye beneen côté bi ci ay ay ay ay ay xafalaat ijtimaa yi la gën a jege yoo xam ni jàkka ni ñu koy organisé kon jàkka am na al wazifa taabudiya mooy barabu jaamukaay am na al al wazifa euh, al tawjihiya barab bu ñuy laabiré nit ñi di la waaye am na al euh, wazifa al almiya muy barab bu ñuy jàngalee la waaye am na al wakifa al ijtimaa muy barab bu ñuy dimbalantee la yooyu yëpp bu ci euh, nit ñi xam nañ ko xam nañ yu ñu koy dund ba fii ñu ñu ñu yóbbu lañ doonte xam na dana jaadu ñu leeral ni wasaay bi xam ne jàkka mi ngi koy taxawee euh, ci wàllu jamono dox na ba nag dafa am ay ay ay ay yenn structure yu sos yoo xam ni yu ci bari dañoo am ay compétence yoo xam ni dafa dëpp yuy jàkk doon def léegi ñu wuute ca jàkka du ni nit ñi yor jàkka ñoo soppi jàkka wala ñoo xamul waaye jamono moo soppi ko lu mel ni xëy na jaamu yàlla ñu ko def jàkkee bi rek waaye bu dee lu mel ni euh, euh, taw jihaad yi taw jihee bi soo xoolee léegi conférence yi ñuy organiser ci ci conférence publique yëpp conférence de ba ci euh, média yi léegi émission yi diine yeeg yooyu bari na bari waay yoo xam daanaka wuutu lañ jàkk ci lu bëri léegi nit ñi mën na jàng ci yooyu mën nañ ci jàng li ñu bëgg a xam maanaam ku ne am nañu fu ñu mën a labiré ci ci ci ci télévision yeeg ci rajo yeeg ci yooyu léegi wuutu nañ jàkk ci rôle boo xam ne tax na jàkk yu bari léegi yooyu daanaka joxtuñ kuy te léegi du ni ñaareel jàkka ja ñoo def rek war waaye maanaam loolu daa am feneen fu nit ñi jëlee euh, lu mel ni jàkka fa lañ doon àttee wax nañ ko léegi ci wàllu social waaye soo demee léegi tribunaux yi fa la ñuy àttee léegi du forcément kon jàkka du yëpp ko pour àtte àtte ci tribunal ci àtte boo xoolee jàkka wax nañ léegi fi lañ daa waajale quartier xare gi moon xare bi moon dem léegi cancer nii ñu ngi fi ak policier gendarmerie daanaka ñooy wàllu sécurité maanaam maanaam ñu société surtout gouvernement yi ni ñu taxawee nii société ni muy doxee léegi tax na am na euh, rôle yu jàkkaarloo du suy yu bëri léegi suyee ko bu dee wàllu njàng mi euh, léegi école yi bari na daara yi ci mustawaay yëpp tax na mooy jàkka li ci daal suyee boobu léegi daanaka nii nit na war demee kon jàkka ay rôlam ay rôle yu essentiel la waaye jamono mooy dox ba egg ci yëpp xaw a séddalikoo léegi am ay ay ay ay compétence yoo xam ni ñeneen dañ koo yore di ko doxal léegi jàkka bàyyee comme ñooñu la ñu ko doxal kon euh, buñ bëggee xam dëgg-dëgg loolu jàkk mooy lan nañ ñi barab jaamu yàlla la barab bu ñuy yeetee di jubbantee la barab bu ñuy jàngalee la barab bu ñuy euh, dimbalantee la waaye yooyu yii nag bu ñu ci jàkk yi peut-être topp suñu bu yàgg xëy na jàkka di ko féete woon rek nga daa jox waaye jamono lay dox ba mujj nag ni ñu nosal bi ak ni muy doxee am ci yu bëri yoo xam daa am structure yu ko euh, méngoo di ko doxal jàkka bàyyee leen ko nag léegi moom dese wasifa temps gudd yam moom donte ci ay barab comme fu ne ni fii yeneen yi ñu koy def maanaam ñu ngi ñu teew suñ jàkka yi ñu ngi def ak adiwaat bayaanaat yi ndax xëy na solonité bi ci am yu doon wax di ko bàyyi xel euh, comme jàkk nag am na dayo bu toll noonu ak yitte bu toll noonu euh, day tax nag mu war a taxawaay yoo xam ne ñi war a jàkkee wala ñu ci taxawee te mooy wàllu idaara bi comme ñu ko waxee rek jàkka ci wu dégg day mel ni ci mu talakaal xamale bopp maanaam bien commun la jàkka bi bien privé ndax bala mu mel ne ay yoon atum jàkka day dañ koy wax suuf sox dañ koy joxe pour julli jël bokk kenn du ko moom su boobaa nag idaara ba kon day war a dellu normalement ci euh, autorités yi autorité publique yi autorité locale yi moo xam maanaam dëkk ba jàkka ja ne ña koy yilif ñoo war a yit jàkkee ndax comme jàkka ju loo xam ne benn nit moo ko moom boo ko xasee joxe rek moom moom ñëpp a cay kon idaaraam dafa war a dellu ci autorité yi nga ne ñoom dëkk euh, idaara boobu nag naa am ci ñaari mustawa benn mooy mustawa sos jàkk ak tabax ko sos jàkk ak tabax ak beneen mustawa mooy mustawa yore jàkka ji di ko sayt di ko topp topp muy muy muy idaara daaxili yi comme jàkk dañu wax léegi ni ñëpp li jàpp mooy bien public la ñëpp a ko bi noonu dafa dellu ci autorité publique yi wala kilifa yi awliyaa umuur yi moo tax day fekk ci lu bari ci réew yi jullit yi ay xawaanin xukum yee yoo xam ne day organiser sa jàkka yi fu bari am na ko ci sos gi ba ci jëfandikoo ga ci anam bu goo xam ni ay sart yu bari daañu gis ñu di ko nuróole boo xoolee dëkk yu bari seeni législation surtout ndikki jullit yi euh, ni ñuy tërale jàkka dana ci bari lu nuroo lool ci yeneen yi da nga ko fekk yeneen législation yi ci ni ñu koy tabaxe daañu ci tudd yenn bokk na sax jàkka ba ngeen ko tabax fi barab na fekk barab ba aajo woo ko lool lool lool jàkk ba leen ko tabax na fekk barab ba aajo woo ko ci nit ña bari bari boo xam ne xale yi jàkk dafa te kenn mënu ko yàkkal na barab ba aajo woo jàkk ci kaw nit ña bari jàkk yi ba teewu ko jàkk yi fa nit ña xajuñ ci waaye léegi ëpp sëñ yi su ko jàkk loolu bari na ñoo xam ci ci ci législation yi te defe naa si ñu xam ne bu junj léegi ci mbajul soo dina ala lil masajid yi bii de am na ci am na ci bunóor yi am na ci li mel noonu am na ci ñaareel ba moo ñuy sàmmoonte distance bi nekk ci jàkka yi boo demee législation dëkk jullit yu bëri ci seen législation yi nga xam ne day wax ci wàllu jàkka di ko normaliser daañu ci tudd ay distance doonte distance yi Euh, day wuute lu bëri ça dépend ci kasaafatu sukkaan yi kasaafatu sukkaan yi bi nu mu demee rek mën naa demee noonu day ñoo xam naa na mat juróomi junni kilomètre asfala juróomi junni mètre maanaam mooy mille maanaam cinq kilomètres daana am daal mille maanaam cinq mille am nañu ni deux mille mètres am nañu mille mètres sax mën nañu sax njàkk mën nañu sax njàkk kenn yëpp ça dépend ci barab ba ak na nit ña toll ca waaye war nañu sukkandiku daal distance jàkka yi ni jàkka yi na am distance sàngam loolu war nañ ko ñu xam bokk na nag jàkk kenn waru ko ci suuf soo xam dañ koo fëkk ar bu mu xasama kenn du ci tabax jàkk ndax bu si tëye du baax wala suuf soo xam dafa am litige maanaam asaf fii na gis nañ dangay gis ñoo xam ni pour ñu dooleel seen bopp wala ñu ñu ñu légaliser suuf seen bopp dañuy nekk fekk suñu bopp dañ koy xëccoo daal dem tabax ci jumaa wala jàkk ji mag moom moom la seen bopp gis nañ ko te jàkka joo xam ne suuf si da nga koo nangu ci doole kenn jox la ko moomu ko ñëpp a bokk kooku ñu waat ma jàkk ba dañ ko tëj waaye suuf soo xam te dañ koy xëccoo te kenn moomu ko yoon la àttee bu kenn mu fàttama jàkk waaye mel asaf yooyu moom ñu koy seetlu fii ah yu a bàyyi xel la bokk na sax képp koo xam dafa coobare tabax jàkka mu sàmmoon teeg règlement yi nga xam ni moom la dëkk ba tëral moo xam commune ba wala réew ma wala dëkk ba ne barab ba mu ne am na ay ay ay ay plan yu ñu war a joxe ci barab bu ne nu tabaxee war a mel dañ naa barab bi tabax bi bu mu naa barab bi tabax bi bu mu diise nangam parce que suuf si la am na norme euh, structurelle yoo xam ne danga ko war a sàmmoon tey bala ngaa tabax jàkk moo tax nga dégg fi leen ñu naan jàkka ju daanu parce que dafay dem moom dañu sàmm tey parce am na suuf yoo xam ni altine yenn poids yi waaye am na foo xam tam xëy na euh, ni jaww ji yi fi jaar lu ma defee dundee yooyu laajut wala am na ay rayon yu fi jaar laajut yooyu man a yenn tabax yu kawee kawee kawee yëpp nañ ko dafay def kon euh, ku bëgg a tabax jàkka boo demee législation yu bëri ci ci ci euh, da nga ta fekk moom mooy na bara ba ajowoo jàkka ja nañuy bàyyi xel distance yi tam mu bañ a jigee lool bu ñu ko wax jàkk suuf soo xam ne euh, amul maanaam dañ koy xëccoo lu ñu noonu buñ maanaam nañ sàmmonte itam règlement yi xam ne moom lañ tëral pour jàkk ja war koo mel bu ñu amee maanaam lu jëm ci wàllu idaara bi nag moom ak organiser jàkka ji maanaam organisation intérieure bi ñaari moom li gën a bari ci réewi jullit yi ci boo ci gëstu da gis ni euh, majlis idaari yi la ñuy taxawal li ci ëpp moom bañ su idaatal masjid bari na loolu moom nga xam ne mooy doxal mbir jàkka yi kooku bari na ci ay jàkka fu mel ni ay Makka ay Medina ak yeneen fi yu yu bari soo ne da gis ni am nañ majlis euh, euh, majlis idaatal masajid euh, majlis idaatal masjid nag ñaare comme niñ ko xam yëpp ay commission lay doon yoo xam ni dana sosu kemtalaayu ni jàkka ja toll ci réyaay akum ndawaay wala na dëkk ba toll ci réyaay akum ndawaay mbooloo miy jiite jàkka ñaare ci majlis son euh, euh, euh, maanaam idaani soni masajid en général boo xoolee taille bi mi am wala caractéristique bi mu mi ngi dellu ci na jàkka ja toll rek bu dee jàkka su ndaw la mbooloo tuuti mën na ko jiite bu dee jàkka ju day laaj maanaam bu dee dëkk bu ndaw noonu bu dee dëkk mag noonu yooyu da ci feeñ waaye li ñu seet daal gis nañu am na ay lijaan yoo xam ñu am na du ñu wóor du ñu bari am na majaalis toon majaalis idaatul masaajid yi am na ay ay ay lu ñu wóor lu bëree bëri ñaar yu bëri dañ ci li ñu àll ñu ne daawiya mooy lañ ne boo xam ni ñooy yore wàllu daax yi maanaam ay daax yi ñu war naa taxaw bi ci di yaatal diina jéeg di ko taxaw ak di ko jàngale am loolu allah dina ijtimaaya mooy wàll social moo koy ngoo ci di saytu nit ñi am na lu ne allah dina amal ay laabiya wàllu communication allah dina maa leen ñuy wàllu san maanaam yooyu moom ñeenti li jàng la yoo xam ne boo doon xool daanaka ci ci majalis su woon ni majalis si daal su woon ni message yëpp daan doon fa gis da nga gis ñeenti li yooyu ak yeneen yu ñu cay dolli nag yoo xam ne day wuute buñ jëloon masalan euh, ndax jumaa yi dañoo bari ay entité yu nekk ci biir jàkk dafay bari entité yu nekk ci biir yoo xam ne yu bokkul la te yooyu yëpp dafa jaar bi dafa laaj ñu di ko nos maanaam jàkk day bari ñoo xam ni dañuy ñëw jàkk te am luñ fay liggéey duñ bokk lu ñuy liggéey te da nga gis jàkk ji noonu jumaa ji nga defee ni ñëpp bokk lu ñu fay def te ñëpp bokk lu ñu fay def ay entité yu bari moo di ci biir masal bu ñu jëloon mel ni jumaa Touba comme Namozëg jumaa Touba ci euh, tanzim daaxili bi danañ fekk ak jagle yi mu am dañ fekk yu bëree bëree bëri ci biir yoo xam ni euh, maanaam des ko mënta ñàkk lu mel ni jumaa ji boobu dañ fekk dañoo al al al mihraab wal muy fi imaam di taxaw di jiite ak fi taxaw di xutba euh, yooyu ñaare imaam yi ñoo ko jagoo seen mbir la maanaam minbar bi ak xalaat bi mbirum aima yi la ñoom doogu maam ñoom doon seen mbir la yor kenn ci ñoom ñoo ko taxaw bu dee mel ni jumaa Tuubaa da nga fekk lu mel ni ak dariixa muy barabu sëriñ bi ak ña koy wattu nga xam ne ñooñu loolu seen mbir la ñoom ñoo ko jagoo am na ñoo xam loolu doog seen bu dee jumataa da nga fekk xaatul lu ñu tuddee daara kaamil moom ci xusu na ñoo xam loolu doog liggéey dem ci jumaa ja jàngi alquran loolu doog seen liggéey ñoom ci jumaa yi loolu lañ fay def maanaam ak ku boo xam loolu lañ def boo ñëwee jumaa ah, ab kuréelu xasida boo xam ne am na heure yi ñuy yëkkati ay xasida di ko jàng ñoom loolu muy seen liggéey jumaa yi loolu lañ fay def ñoom daanaka man altitude bari ñoo fi nekk yoo xam ni maanaam ñenn ñi dañ fay xëy nga naan yi lu ñuy xëy te fekk ñu daa am lu ñu fay def ñoom seen boobu ci la ñuy xëy boo jëlee masjid mag jumaa Tuubaa nag fekk euh, daaray jàngukaay ñuy daarul maarif al islam yi nga xam ne ay jàngalekat ak jàngkat ñoo xam ne loolu nga si nii ñu leen yóbbu jàngale mooy di tëralal ñe boo ñee bëri bi ñee itam leen fi leen di tëralal kon yu bëree bëri ci jumaa ji boo xoolee ay entité yu bari ñu ne ñoo def ci biir yoo xam ne ñenn ñu daa am lu ñu méngoo di ko def boo xoolee yuy duggante la yoo xam ne xëy na am na amul relation directe ak jumaa ji waaye am na relation ci beneen côté nag ba tey da nga fekk yi ñoo xam ni xumalul nazaafa ñoo xam ni set setal jumaa ji ak di ko bale di ko def loolu la ñuy liggéey ñoom loolu seen liggéey loolu rek lañ fekk boo jëlee jumaa yi da fekk ñoo xam ne ay techniciens yoo xam ni. réparé rajo yaa ngi di ko defar loolu mooy seen liggéey man nga xam toujours dañu ñoo koy saytu kon jumaa yi Tuubaa jël comme bu jël misaal yii ma tudd yëpp ay entité la xëy naa yeneen yu ne ci biir jumaa yoo xam ni ah, ay mbooloo yoo ko di xëy ci jumaa ji di ci liggéey loolu la lu muy tëdd rek solo su jumaa am solo mu mel ni nag saytu yooyu ak tansiix bi ak organisation dafay dellu ci euh, daayira bu xaddamul xidma bi nga xam ne ñoo taxawal liggéey bi ñoom la sàmm defal tawféexi yooyu yëpp nag ñu di ko nos di ko organiser di ko taxaw ci taxawin bu rafet bu mu ayib boo xam ne euh, ñi nga sàmm doon leen cee euh, dëgëral waaye boo doon xool yeneen jàkka yépp tam nag noonu la mel muy Màkka muy Medina. ak feneen jeneen jàkka yoo dem ci ci ci dëkki jullit yi boo dee ci biir jàkka ay entité yoo fa nekk yu bari yoo xam ni yu wuute am lu ñuy def doonte ñun fii am nañ fi suñu xuso seen yoo xam ne moom daanaka fii la koy fekk nga xam ne moom ay ay ay ay kuréel la yoo xam ne moom euh, ci biir la ñu nekk jàkk ñu fi xëy yor fi seen liggéey dañ koy liggéey waaye lépp nag ñu teg ci digal euh, mu mel nag ci li ñuy jeexale mooy li si mbirum junj léegi rek. Euh, am na yeneen liggéey yoo xam ne ñu ngi taxal jumaa yi muy activité lu mel ni activité ramadan yi maanaam muy waxtaan yi def ci biir jumaa yi ci wàllu koor nga xam ne dañ ko organisé moom itam bu jot mooy muy liggéey bu bu yaatoo yaatu ba am solo lool waaye jumaa ji ko taxawee euh, yii di wàllu liggéeyu euh, màggal gi bokk ci bi moom sax di yeneen yi ci dolliku xëy na ak yeneen yoo xam ne yu ma xamul waaye maanaam ñu xam ne jumaay Tuubaa ji daal nga xam ne modèle la boo xam ne bu riis ci activité la ci ay activité yoo xam ne mi ngi koy taxawee di ko dëppaleeg jamono waaye muy lu am njariñ lool loo lool loo xam ne tam euh, daanaka xuutal mën a ñàkk te lépp ñu teg ko ci ndigal euh, ni ko sëñ bi xadi euh, junje léegi nag dafa mel ni yëpp nag sëriñ bi daf ci dolliwaat leneen muy Cheikh Moudou Moutaxa di ah, xalif général ah, ah, al murid ya ñu ñaan fan tey doolu ko wéral doolu ko fa yàggal liggéey boobu nga xam ne da koo dégg ko waa mu xaddam na xel ko ñu war ko ànd waa raw duna yaaxin ci nag yi ñi ma doon wax léegi ci idaara yi ci mustawal insha yi wal binaa mustawal idaara yëpp bi ci ne ñu war koo taxawee bu ñuy tabax jàkk ñu am caw yoon yooyu ma doon wax léegi ñu bàyyi ko ci xel ah surtout di ko jubale xel ak ko dëppale na war a mel waaye di taxaw nii itam jàkk yi ni ñu koy saytoo ci biir xay na saytu biir jàkk ji moom ña yor jàkk ji dafa moom mi ngi si diggante imaam yi ak bilaal ak ñeneen ña fa nekk maanaam daanaka ak dëkkandoo yi ñoom ñoo ko seq ñu ngi seq jàkk yi ah, kon ñoom lépp seen liggéey daal mi ngi dem ci fa fa boobu la gën mooy ku bëgg a tabax jàkka ah, ak na nga koy tabaxee ak ñu fa ba orienté la jàppale ci li loolu euh, liggéey bi ci la jëm muy liggéey boobu solo boo xam ne itam noonu ah, jot nañ cee daje ba taxawal kuréel gi ba structuré ko ba na mu tëddee mu tëddee noonu nga xam ni am na ay lijaam yu bari ci nekk yoo xam ni euh, xëy na duñ ci guddal dañuy koy bàyyi seen xadar xëy na mu dellusiwaat ci duñ leen ci yenn rek waaye. Euh, ñu xam daal am na kuréel bu taxaw boo xam ne ñu ko taxawal ci ndigal euh, Sëriñ Muntaxa waa daayira Tawbe xaj séq ko ak daayira Muxaddamatul Xidma muy kuréel boo xam daal dañuy saytu jàkka yi dolli ko ci liggéey yi ñu solo loo xam ne nag ñëpp ci war a jàpp mu dox ndax dañ dañ koo soxla dañ koo soxla maanaam dëkk bi ñu ko waasam jafe-jafe ci jàkka bari na barab yoo xam soo demee nit dafay dëkk mu yaatu lool mu samp daaram samp jàkkam mais gis nañ ni léegi ñàkk réglementé gi tax na nit day ñëwaat ca wet ga samp daara tax jàkkam soo xoolee ci dëkk bi tu am na jàkk yu jigéen lool lool ba jigi sa jàkk yu jigéen jigéen te kenn wax kenn dara yow da ngay ñëw samp amaana yow mi miy samp sa jàkk bi koy samp fekk na am na koo jige woon maanaam waaye bàyyiwoo xel waaye bala ngaa xam lii nga def lu danger la keneen ñëw jege la lool te nga xam ne yow li nga doon def danger la maanaam toujours nit dana def dara du xam li muy def dégâts yi ci ne du xam préjudice yi ci ne il suffit keneen ñëw def ko ko moom ci lay doo nga xam ni gis nañu day gis bi ci dëkk bi koo xam day ñëw tabax benn établissement scolaire bu mag a mag ci quartier boo xam naa nag mën naa couvrir dëkk ko yëpp ñu yëgoo keneen ñëw tabaxaat même même loolu ci ci benn bi xam nga loolu tam du gëm te ñun mënaan fi la ñu am na ay ay ay daara yu ay ay barab ay jàng dañoo jigéen loolu moom ëpp ci même benn quartier wala jàkk bi ngeen ci benn même quartier loolu nag li ko doon a dimbali lii sëriñ bi santaane jox ko ñaari mbooloo yi nit ñi jàppale leen ci surtout kilifa yi xam ni lu am njëriñ la ñëpp amal njëriñ euh, buñ ko sàmmutee moom day mujj egg ci jafe-jafe boo xam ni kenn du ko mën jënd ndax jàkka yi daañu taxaloo daara alquran yi taxaloo école arabe bi taxaloo école français taxaloo mooy fi taxaloo taxaloo koo xam daanaka léegi daanaka kenn xam ñu su boobaa nag du neex a saafara kon nag ñun suñu xaatu defe naa. incha allah mën nañu tënk ko ci laaj bi rek. loolu bëgg na bi. incha allah ci masjid bëri na lool waaye lu ci masjid defatul te am beneen ñeneen ñu ko méngoo ci ci ci ci. yeneen musul yi itam nañ xam noonu la wax dem daal kon loolu la ñu leen di luñ euh, juj gërëm lu ci ñoom te ñu ngi koy euh, jéggalu di jaajëfal mbokk yi doon organiser liggéey bi leen dokkeel baax a baax nag di jaajëfal cameraman cameraman yi ak euh, bi nga xam moo koy jàll jàllale muy organe bi jumaa yi seen liggéey am solo loolu bu tey loolu yaa ci àdduna lépp nii leen dokkeel baax ñaan sa borom ñu teewe koy déwén déwén déwén fa mu def ma màggal bu neex a neex màggal bu ñu barkeel màggal bu ñu euh, euh, nangu euh, bàyyi si ñu xam yàgg fi lool ak jëwriñam yi mu àndal lépp barke Cheikh Xarim asalaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Maam Balla Mbàkke Muxtaar wax dëgg yàlla waxtaan wi am na solo lool lool lool lool xam naa sax tënku na ci tënku na lool ci temps bi yaakaar naa dañoo waxoon quarante jëm cinquante nit waaye soriw ko waaye am ngi solo moom foo ko takk rek wees na ko tënku na tey liñ ci séntu ci ay njariñ gis nañ ci lu kawe njort bu ñu doon ñëwaat ci lu gàtt rek dañu wax ne fi mu dooree waxtaan yi mooy gannaaw bu mu nuyoo wax na yenn ne yi nga xam ne borom xam-xam yi xam ne nañ ko jàkk mooy fan mooy lan waaye li ëpp solo fii mooy Euh, teqale gi mu indi ci diggante jàkka ak jullikaay ak juma gën a concentré wu bu baax a baax ci lan mooy jàkka nga xam ne saa yu ne suuf sañ koy tabax lu ñuy xubus la lay doon wala lu ñuy def waqf loolu di am lu am solo euh, muy loo xam ne day jox baneen baneen dayoo ak baneen wàccuwaay jàkk muy ne suuf siñ koy def suuf la soo xam ne waqf lay nekk nga xam ne kenn du ko jaayati kenn du ko moomati kenn du ko doonati kenn du ko mayeeti waaye mu wax ci xusuusiya yi nga xam ne jàkka am na ko mooy saa yoo ci duggee dañ lay digal bu dul bu dul waxtu woo xam ne dañu fay tere dañuy tere ko naafila boo duggee nga nuyu jàkk ji bokk na ci lañ fay tere bu dee jàkka la ku am ngànt jigéen ju am ngant du fa mën dugg wala ku amee janaba moo xam muy góor moo xam muy jigéen akub yéefar xëy na yéefar bi fuqaha yi danañ wax rek ne bu ci ngànt amee euh, bokk na ci lim leeral ci jàkka ginnaaw suuf la suñu waqafle saa yuñ ko tabaxee kenn du tabaxaat ci kaw ngir dëkk ca wala di ca commerce bu ñuy tabax ca kaw daal ngir yàkkalee ko jàkka ji lay doon ngir gën a yaatal yii mu wax yépp nag wute na ko ab jullikaayu kase boo xam ne moom jubluwuñ ko muy yàq jullikaayu kase moom kenn terewul fa yii yépp bu dee jumaa moom day mel ni baat bi firi na boppam mooy rek fu ñu taxawale ay juma fu ñu jullee ay juma dafa mën a lentikaafe comme lentikaaf moom ci jumaa ñu koy defee euh, bu ñëwee ci ñaareelu tomb bi te mooy euh, taxawaay yi war a am ci jàkka ak jumaa yëpp ndax bu ñu waxee jàkka rek day yóbbaale jumaa fi ak ñu ngi fay taxawal ay juma taxawaay ya day mel ni mën nañ ko seetlee ñaari taxawaay am na ci taxawaay yoo xam ne mooy cosaan li mooy mooy taxawaay dëgg-dëgg te mooy jaamu yàlla rek mu indi ay aaya alquran ak ahadis yoo xam ne tegtale na ko tudd yàlla ak julli ñaari taxawaay yooyu mooy ñaari taxawaay yi gën a fés ci taxawaayu jàkka di jumaa te la koy tënk mooy jaamu yàlla rek am na ci ay taxawaay yoo xam ne moom mën naa am ci jàkka lu mel ni seddale asaka yeeg sarax yeeg joxe aw ñam ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne wax na ko te mu jëm ci wàllu social wala mu jëm ci wàllu diine wane na bu baax a baax a baax taxawaay bi nga xam ne jàkka yàgg na koo am ci benn la julli ñi nga xam ne bu jàmm daan am ci jàkka lañu lijjantee ba jàmm gën a law gën a sax waaye buñ mosaan nekk ci ay tolof tolof wala ci ay jafe-jafe war koo lijjanti lu yëm ci wàllu àtte wala ci wàllu xare ci jumaa yi ak jàkka yi dañ ko daan lijjanti yooyu yëpp nag mu tënku ko ci ñeenti taxawaay ñeenti wasaif wasifa bi ci jiit mooy bi ci cosaan rek nga xam ne moo fi sax ba faw yeneen wasaif yi ci des yëpp jàkka mi ngi ko daan taxawee mi ngi koy taxawe ba tey waaye nag léeg-léeg mu am euh, yeneen barab yu ko ci mën a wutu wala yeneen mbooloo yu ko ci mën a wutu wax na fi wasifa ta'abbudiyya wadifa tawjihiya muy jàkka am na taxawaayu jubbanti te loolu mën nañ koo tënk rek ci xutba yeeg bayaan yeeg conférence yi ñu fi def bu dee fii bu ko jëloon par exemple muy bayaan yi ak xutba yi day day dugal ay juma yi ñu fi yi fi daayira bi di di taxawe ak imaam yi fi nekk waaye bu dee muxaadara yi day dugal muxaadara conférence yi am ci weeru koor ak yi am ci jamono jii ñu nekk muy ci weeru safara am na wasifa ayniya bu dee ci jumaa ji fii boo làmbatoo tuuti rek da nga koy daj te mooy daarul maarif bi nga xam ne bi ñu tabaxee jumaa ji dañ ko ko bootal kon loolu lay wan ne rek ne kilifa yi fii yàgg a nekk it yàgg nañoo xam taxawaayu jumaa taxawaayu jàkk wasifa ijtimaaya bi bu dee fii ci jumaa ji ak fu ni mel danañ gis ne fi lañuy fase sëy yi xëy na bu dee asaka yeeg sarax yeeg yu mel noonu am na ñeneen ñu koy taxawee ba mën naa bañ a fees lool ci jumaa ji waaye am na yeneen xadamati ijtimaa yi yoo xam ne dañ ko fi def te xëy na la ca gën a fees fi ne nii mooy iftaar yi nga xam ne moom la def ci weeru koor gi waaye nag mu mujjee ci lu am solo muy taxawaay bi nit ñi war a am ci jumaa mu seetle ko ci ñaari taxawaay taxawaay yi nga xam ne moom la ñuy am ci bu ñu koy taxawal te mooy ñi nga xam ne ñoom la ci tuddee ay muxsinuun ñi yàlla dénk ñoom mën nañoo taxawal waaye bu ñu ca noppee nag la koy saytu saytu ga wane na ne ci réew jullit ñi baree baree bari am na ci ay tënk-tënk yoo xam ne dëppoo nañ ci ci ne noonu lañu war a saytoo jumaa am gum am solo nag Euh, moom jàkka wala di jumaa ak yit taxawaay yu am solo yi nga xam ne sëriñ bi lim na ko muy ay taxawaay yoo xam ne jumaa da ko war a taxawee loolu moo tax nos ko saa yu ne dafa war a dafa nos gi dafa war di continuer dafa war di rafet waaye it euh, ñi koy nos it dañ ko dañoo war a nekk ñoo xam ne taxawaay bañ ca war a am taxawaay bi dafa war a mat sëkk te leneen koy may mooy ñu am compétence loolu moo tax comme ni ñu ko junjee ci mujj waxtaan wi fii fu mel ne Touba xëy na nit ñi xër ak bëgg lu baax mën na leen a yóbbu léeg lekk ci ñu mën a def njuumte te duñ ko yëg njuumte sax daa commencé am ba commencé law ba commencé bari loolu moo tax sëriñ bi daal di jox ndigal ñaari mbooloo yi nga xam ne ñoom lañ fi tudd léegi te mooy daayira Muxaddamatul Xidma ñu ànd ko ak daayira Rawdu Rayaahiin pour jéem a saytuwaat xoolaat liggéey ak taxawaay yi nga xam ne moom la jumaa war a am rawatina fii ci dëkk bu sell bii nga xam ne boroom kenn ku ci ne xam na digganteem ak jumaa digganteem ak jàkka niñ demee woon loolu moo tax taxawal nañ mbooloo mi mbooloo mi fii ak ñuy wax fii ñuy wax ak yéen nii ndigal li sëriñ bi joxe na ko ba noppi lañ ca war a lañ ca lañ ca war a taxawee ci taxawal ay commission taxawal nañ ko ba noppi am na ku ko jiite am na ay coordonnateur am na ay secrétaire am na ay commission yu wuutee wuute yoo xam ne xëy na bu ñàkk balaa yàgg danañ def lancement bi bu boobaa liggéey bi danañ ci gën a yaatal ca anam gam gën a rafete anam gam gën a mate waaye li am solo daal mooy fi ne nii képp koo xam ne bëgg ngaa tabax jumaa wala nga bëgg a tabax jàkka mbooloo moom danañ ñëw saytu barab ba xool ba xam euh, li nga fi bëgg a tabax laaj na ko wala laajul xool it anam gi nga koy tabaxee boo noppee yorin wa lépp lu ñu la ci mën a jàppale ci ay orientation lépp lu ñu la ci mën a jàppale ci ay laabire ci ay jubanti ak fu ñu ci mën a ànd ak yow rek ñu ànd ci ak liggéey la nag boo xam ne sëriñ bi dajee joxe ndigal waaye daayira bii di daayira Moukhaddamatoul Khidma yàgg na koo taxawee waaw daanaka daayira bi at yi yëpp rawatina at yu mujj yi képp koy ubbi jumaa wala ngay ubbi sa jàkka da leen woo ñu taxawal la ci jox la dara ci seen expérience bu ko defee nga mën koo niitoo ba mën a xool mooy yore sa jumaa noo koy mën a saytoo ala kulli xaal kon liggéey la boo xam ne liggéey bu bees la dañoo waxoon ne mun a ñàkk rek ñu junñu ko te sëñ bi lim ci junñu doy na sëkk xëy na balaa yàgg xat-xati màggal gi mooy tax waaye bu ñu demee ba jógee ci danañ defaat am ndaje mu gën a yaatu moo xam ne dana nekk lancement boobaa danañ leen wax mbooloo mi ni tudd dëgg-dëgg ñi ko jiite commission yi ci am ak it ñu war a liggéey yëpp kon ñi ngi santaat mbooloo mi bu baax a baax a baax di sant ñi ñu doon teewlu ñëpp di sant euh, euh, ligne bii nga xam ne moo ko doon jàllale te mooy MK TV di Muxaddamatul Xidma euh, ak it seen page Facebook grand Mosquée de Touba ak bunt yi ñu am yëpp di fa jàllale ay xibaar ñu leen di sant bu baax a baax di sant ñi ko jëlaat ci ñoom di ko diffuser waaye di sant mbooloo mi teew ci jotaay bi yëpp. di sant kilifa yi nga xam ne ñu ngi nekk ca seeni euh, wàccuwaay di ñu diglu di ñu bàyyi xel rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal majlis bi nga xam ne moom lañu junj léegi te ñoom ñëpp waxoon ne danañ bàyyi xel waxtaan wi bu baax a baax a baax di santaan bu baax ak gërëm ak a ñaanal ak a euh, bi nga xam ne moom lañu am nañ ci taay bi te mooy sëriñ Mame Balla Mbacke Muxtaar di ko sant di ko ñaanal ci taxawaay yi nga xam ne ñu ngi gis saa yu ne mu koy taxaw ci yeneen ju rafet di ñaan suñu boroom gën koo dëgëral gën koo kàttanal li muy def lépp te yàlla tax sëñ bi tax mu tase ca ak seen ngërëm di wàcce suñu kàddu foofu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox dig daje xam ngeen ne waxtaan yi day continuer ci comme ni ma ko waxee woon léegi ci juróom-benni fan yi tey moo nekkoon ubbi bi comme ni ñu doon waxtaanee. yaakaar naa wax nañ ko léegi te muy jàkka ak jàkka ak taxawaay yi mu bu ko defee suba incha allah danañ waxtaane danañ jàngat ak faram fàcce xasida gi ñuy tudde yaasal bushaaraat yi ki ko war a taxawee mooy Serigne Bassirou Touré ñu ngi leen jox dig daje kon ci waxtu yi juróom-ñett juróom-ñeenti waxtu bu tegalee fanweeri simili te muy vingt et une heure allah di santaan mbooloo mi teewoon ñëpp di leen gërëm di wàcce foofu suñu kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.